munti nekk si biir Sénégal ñépp ñoo leen di teewlu ah Tawfekh mbokk yi mooy assurer seen visibilité Tawfekh production le leader dans son domaine. Ah, ñu am ngi toll ci fukki xale ak benn ñeent ñu góor ak juróom-ñaar ñu jigéen. ñu mokkale alquraanul karim fii ci daara internat externat daarul quraan ci njiital sëriñ Maxtaar Jenn mu nekk fii ci Touba Daarul Manaan inna arsalnaa nuuhan ilaa qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum 'adhaabun aliim qaala yaa qawmi innii lakum rasuulun amiin an u'budu llaaha wattaquu waati'uun yaghfir lakum min dhunuubikum ويقول لكم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يقر إن أجل الله إذا جاء لا يقر لكم تعلمون قال رب إني لا أضل قومي ليلا ونهارا ولم يسدوا معي إلا فرارا وإني كلما نهضوا من تغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستعصوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال بنينا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون إلا وقارا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 يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يقول بل إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق قد لا لا آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يلقوا إيمان في قلوبكم وزين أجلهم كفر أنفسهم قد لا لا آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يلقوا إيمان في قلوبكم لا يرجع معهم على سيئات إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون قاتلوا في سبيل الله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 allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi arrahmani arrahim qul a'uuzu bi rabbil falaq min sharri ma qalaq wa min sharri qaasiqin idhaa waqab wa min sharri naffaasaati fil 'uqad wa min sharri qaasiqin idhaa hasad bismillahi arrahmani arrahim qul a'uuzu bi rabbin naas malikin naas إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائه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 di seede li ñu gis ci njàng mu rafet alxuraan ju wér waaye tari bu set ki jiite woon liggéey bi di maam Serigne Dia markazu iqra ren nag eh, ñu defati lu mel na liñ daa def te mooy def ay résitat ren nag ñu am nag ci édition 2024 bi muy lu am solo nga xam ne daara ji ren incha allahu taala génnee na fukki xale ak benn waaye ren nag am lu ci yees lu am solo loo xam ne soxna yi ren moom beral nañ leen seen wàll bu baax a baax a baax ndax juróom ñaari xale ci fukki xale ak benn yooyu juróom ñaari xale yëpp ay jigéen lañ ñu téyel leen ñu mokkal alxuraan nga xam ne ñeent yi ñu ñooy góor waaye li ci yéeme nag mooy ñoom ñëpp biñ leen dégloo ndax niñ ko sëriñ bi baaxoo defee muy sëriñ Maxtaar Jenn mi nga xam ne mooy mu mudiru daara ji ni baaxoo di def waxtu woo xamee na xale yi mokkal nañ day génnee loxoy sëriñ daara yi nga xam ne ñoo leen doon jàngal daal di jokkoog sëriñ daara yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi wax ne nañ leen tànnal ñoo xam ne dañ leen xam ci jàngale xam leen ci xereñ ci jàngale xam leen ci maandu xam leen ci ragal yàlla ñu def noonu ñu tàmbali woon ko àllarba nga xam ne dañoo defoon àllarba ñu ngeen xam ngeen alxuraan juróom-benn fukki isib la ñu séddale ko ñetti fan ngir loolu liñ ci jublu ngir tare bi ñu gën koo jekk gën a mën a saytu gone yi ba xam mokkal gi wér na wérut loolu nag li ci gën a yéeme mooy bi ñu defee loolu ba pare lañ netu tansiix bi nga xam ne moo doon dajale liggéey boobu bi ñu xoolee gis nañ ne xam ngeen ne dañ leen joxoon ay kayit kayit yi dañ ciy bind bu xale bi yàqee bu gagee bu rungee ndax xam nga ne alxuraan kitaabun xam la suñ borom wax téere bu bëri ay runge la ba bëri ay baat yu nuroo téere bu jafe la waaye biñ xoolee saytu gone yi lu néew nga ciy gis loo xam ne bindal ñu ne ci te loolu wunge lay doon wunge mooy ñi xam alxuraan xam nañ ne baat yu nuróo yi walaakin ak sarayaak ak baat ya nga xam ne ñoo nuróo ci alxuraan bëri loolu mooy ay mutasaabaxaat te loolu wunge lay doon te buñ leen buñ leen dégloo tuuti dañuy jàll kon bañ xoolee kenn a ci loo xam ne e, gis nañ ne war nañ ko yóbbuwaat mu jàng ñëpp xool nañ ne xifsan wa tajwiidan mokkal nañ ci mokkalin wu rafet ànd ak tajwiid bu rafet macha allah muy fukki xale ak benn. di juróom-ñaar yu jigéen ànd ak ñeent yu góor te la ca gën a yéeme mooy ay xale yu tuuti lañ yoo xam ne ñi ci ëppal ay at duñ weesu fukki at ak ñaar. ci wàllu set ak setal dund ak faju ak toppatoo xale yi ci fànn yépp noonu la yitteelee daara ji tax taxawaay bu mat sëkk moom la ci daaral Qur'an taxawee. xam ngeen ne daara ji daara moderne la daara ju am solo la joo xam ne. nekk yi na gone yi dañ koy saytu bu baax ni ñu saytoo njàng mi dañu saytoo yar bi moo tax ñu wut ci góor ñi koo xam ne moo leen di saytu ci seenu yar buñ jàngee ba pare ci ni ñuy tëddee ci sambin bi ci lépp ci loo xam ne maanaa xale bi condition yi muy nekk ci daal ji day doon condition yu baax yoo xam ne sax mooy sax gis naa ne daal ji ñëw naa fi ñëwati fi waaye yaakaar naa ne xale yi sax boo leen laajee condition yi nekk ci daal ji moo leen dàqal sax seeni kër waajur ba loolu sax tax na ba ñu bëri amee sax am na ci ñoo xam ne sax bëgg ñoo dem loolu nag li ko waral mooy saytu gi daa yëmul ci njàng mi waaye dañ leen di saytu ba ci seen wàllu wér-gi-yëm ci tëddin bi ci lekkin bi loolu tax na nag ñu jël ku mel ne ci wàllu jigéen ñi soxna Maguette Touré nga xam ne mooy saytu jigéen ñi xam ngeen ne jigéen fu mu nekk daa war di solu di sañse di léttu di defaru bu baax a baax a baax ndax nekkiinu góor ak jigéen bokkut moo tax ñu jël soxna màggatule moom it ñu ngi koy sant bu baax ci taxawaayam waaye nekki noonu ci góor ñi it ñu jël sëriñ Modou Wade nga xam ne moom moo leen di saytu ni ñuy saytoo jigéen ñi la ñuy saytoo góor ñi macha allah def ci taxawaay bu am solo waaye xam ngeen it ñu dee jàngale di yare it nit ki bu fi nekkee day lekk ka naan kon lekk ka naan googu nag soxna Aminata Mbacke bintu Cheikh Mamadou Moustapha bi nga xam ne moog sëñ Matar ñoo seq daara ji muy bàjjani daara ji moom it da cee taxaw taxawaay am solo ànd ak loolu ñuy togg di leen toggal togg yu am solo yaakaar naa daara ji ñëw naa fi ba tàyyi waaye neex na lool yaakaar naa ne am na ndaw ko ndaa yoo xam ne bu fekkoon ne daara ji dana jël mag dana am ndaw ko ndaa yoo xam ne dana ñëw bokk si ci daara ji ku mokkal alquran sa xel dem ci njàngum xam-xam tax daarul quran ci njiital sëriñ Maxtaar Jenn ubbi leen ab complexe franco bu ñuy wax complexe Maam Awaloo ñoo fay jàngale bépp xeetu xam-xam di fa tàggat tu tànk yi ci métier yu wuute maanaam formation professionnel waaye ñu beral ca ñi mokkal alquran ab cër bu yaatoo yaatu waaye suñ mataari ñu ngi koy sant ndax bi mu defee loolu ba pare it jàngal xale yi ñuy mokkal alquran yëmut ci loolu ndax xam nga gone yi at yi ñu am mokkal alquran macha allah dañ leen a war a taxaw ndax ku am fukki at ak benn wala fukki at mokkal alquran kon dese nga war a jàngaat dix-huit ans nga xam ne di bi ngay war a am dix moo tax mu ubbil leen école boo xam ne dana tàmbali ci majalis ni ñu ko xamee ci majalisu dëkk bi nga xam ne cosaanu dëkk bi sëriñ bi ni mu ko bindoo bindoo woon mooy nañu jàngan jàngum majalis te mooy jàngum diine nga xam ne mooy jiitu ci xale bi mu xam alxuraan ji mu doon jàng lan mooy attee alxuraan ji ndax ay araf la waaye alxuraan ji xale bi da ko war a xam xam li muy firi mooy tax mu bëgg alxuraan mooy tax mu jëfe alxuraan loolu kon mu def benn majaalis waaye yëmut ci majaalis bi ubbil leen nag complexe boo xam ne mu jamaax boo xam ne lépp dafay nekk luñ soxlaa jàng ci wàllum arab ci wàllum français ba nga xam ne xale bi buy génn dana am niveau bu kawe waaye yëmut ci loolu nit ki bu jàngee ba xam it day laaj mu am li sëñ Tuubaa daa wax ne kasbul xalaal te mooy fàgg lu leew mu fexe it ba def fa foo xam ne danañ fa former xale bi ba nga xam ne bu génnee bu amee xam-xam it day a am métier moo xam ne day da koy mën a yóbbaale fa mu nekk. kon sëñ Matar jërëjëfati ci turu donga daara yëpp ak sëñ daara yëpp ndax da nga leen a dundal tuuma ndax dañoo yàgg wax ne daara da nga fay jàng ba pare doo xam lii doo man lii doo man lii moom nag daa bokk ci ñi nga xam ne dama ñëw dindil doomi soxna yi tuuma kon doomi soxna yëpp ñu ngi lay sant sëñ Matar ci sa liggéey ci sa taxawaay ci sa engagement ci investissement bi nga def ndax boo ñëwee ci jumaa ji rek macha allah gis ngeen ko yéen ñëpp ko gisandoo boo demee ci daaw ji macha allah. bésub tari bii nag moom la ñuy waajalee cérémonie sargal ak teral ñi wattu alquranul karim ñu boole ko ak fin d'année complexe maam xawaloo mu war a doon dimanche le 14 juillet 2024 fii ci Touba Daarul Mannaan ndax niñ ko defee nii ñu tare alquran mokkal ko ñu téye leen ba mu jeex takk bis ba dañoo bëgg bu ñu àggee ca dimanche ja muy la 14 incha allahu taala nga xamante kilifa yi dañuy ñëw waajur yi doom yi ñëw ñiñ seetal dëkk bi ak àdduna ñëw ñu gaaral xale yi nga xam ne ñoo mokkal alquran buñ noppee kañ leen neexal leen sargal leen waaye xam ngeen ne école ba it ni daara ji def di génnee ay résultats ne la école ba def ci at mi génnee ay résultats yu am solo kon gone ya nga xam ne ñoo fa raw am war nañoo am ay neexal ñu boole lépp def ko fee daane boo xam ne ci diggante ñi ne ci école ba la ak ñi nekk ci daara ji kon jërëjëfati jërëjëfati kon ñu ngi jox dig dage incha allahu taala la 14 di dimanche bii di ñëw à partir 14 heures incha allahu taala ci complexe ba ci Touba Daaru jàkkaarloog te sëñ Modou Xabaan moom Cheikh Mamadou Fadal ci jàkkaarloo gi penc Mbusoobe insha allahu taala yaakaar naa ne ku fa ñëw dana gën yaatu li nga gën a bëgg xam ci diggante daaru xuraan ak li nga bëgg a xam ci complexe soxna maam awloo insha allah loolu kon dana leer sëriñ mahmadan mbàkke ibnu sëriñ abdul baaqi moom sëriñ sàmba doomam bokk ci mokkal alquran mu yëkkati ay kàddu yi cant ak seede jëme ci daara ji euh, sëñ Mataara liñ la sant rek yow war ngaa sant yàlla lu ko ëpp ndax lii noonu ma ko waxee rek njàmbaar ma yowu ko man-man ma yowu ko waaye tawféex suñu borom rek moo koy maye yàlla defal la tawféex jooju nga xam ni bëggandoo nga ko ak sa moroom yu bari mënandoo ko ak sa moroom yu bari itam waaye yàlla yàlla defal tawféex yi nga def ko kon nga sant yàlla bu baax ci loolu bu baax a baax ah eh, ñaan nag yàlla yokk la ci dal la ci tawfiix ba lépp loo ci yéene yàlla defal la ci lu kawe sa njortu xale yi nga xam ne itam yàlla def na seen alxuraan sotti tey yàlla na yàlla def leen ndab yu barkeel eh, ñu doon njëmbat yoo xam ni njëmbët yu barkeel lay doon ba fépp fu ñu dem doon fa daara joo xam ni danañ dem ba lu mel nii dafa juddoo yàlla mën na yàlla nañu ko yàlla defal ñun ñëpp fu ñu dem ëllëg itam yàlla neen yàlla def ñu ñoo xam ni dañ fay tasaare alxuraan dafa tasaare njàngaleem sëriñ yi